moo doon dimbali ndeyam xale bu baax xam nga ne fukki at ak juróom-ñett heure bii dafa waroon a fekk ñu naan la am na befem wala am na bac waaye xam na ne moom ndeyam dafa néew doole mu fas jom nag dem di tibb ay sareeti suufam di jaay di dimbale ndeyam loolu nag ci la ko jéye ji fekk ba ñu téye ko ba mujj ñàkk bakkanam ci kaso bi moo ne ndeyam am na ñetti weer yoo xam ne tànkam euh, bëtam gisu ko kere ba mu fi xëyee dem di tibbi suuf mu dégg ne ramaas nañ ko ci la ko ci la ko gëj a gis ba tey jotuta dem ca kaso ba sax seeti ko ndax bu waxee rek papaam defal ko ne ko léegi ñu bàyyi ko maa maa ngi ci kaw maa ngi koy lijjanti ci am naa ci yaakaar waaye xam nga ne tey ndey mbay euh, yaakaaram tas na yaakaaram tas na bu baax ca xam nga ni lii kuy jur doom di yeewoo fi ci Sénégal nga doon sénégalais à 100 pour cent na pire xam nga ne metti na sa doom deful lu may dem di liggéeyi wuti lu mu am lum la dimbalee ci kaw loolu ñu ramaas ko ci téye ko ñetti weer yàlla waroon koo libéré ca nga gis ñi def li gën a piir nekk ci Sénégal gi kenn ca kenn waxu leen dara ñu leeral ko ba mu leer wax ñu ci anaam yi mu dee wax ñu ci anam yi mu dee ak anaam yi taxoon ñu téye ko fa boobu ba léegi di ko traîner ci tibbum suuf kese ñun loolu rek lañ soxla. bu yoon defee liggéeyam fu ñu teg rek ñu tegu fa te nag mu tegu ci mu dëgg lal ko ñu tegu ci dëgg parce que nag li tumuranke Sénégal mooy dëgg dañ lay tooñ tey dóor la. layoog yow yay la moom mooy moom la sénégalais yi di dund ku xam métti rek xam nga ne tey suñu xol neexut metti na maa ngi lancé appel nag di tàllal ñëpp loxo na ci autorité yi jàpp ndeyam ñu am lu ñu ko dimbale ndax moo nekkoon loxoom moo ne nekkoon tànkam moo nekkoon loxoom nekkoon tànkam nañ ko teg ci yoon man daal loolu laay lancé appel